yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu fukkeelu njàngale mi ak benn yàlla fas na kóllëre ak ibrahima nanu bamtu nettali bi weesu benn lan la yàlla dig adama ak awa dig na leen ne kenn ci askanu jigéen ji dina daan seytaane ñaar lan la yàlla dig abraham yàlla dig na abraham réew askan wu yaa ak ab sët buy doon barke ñépp ci àddina ñett bi yàlla di dig loolu abraham ndax abraham amoon na ay doom déedéet mbind mu sell mi nee na ci njalbéen gi saar fukk ak juróom-ñaar aaya benn ba aaya juróom-ñaar ba abraham amee juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent am bés aji sax ji feeñu ne ko man may yàlla aji kàttan ji doxal ci sama kanam te nga mat sëkk dinaa feddali sama kóllëre ak yow yokk bu baax ba ko abraham déggee mu daldi sujjóot yàlla wax ak moom ne ko man ci sama wàll lii mooy kóllëre gi ma fas ak yow di nga nekk baayu xeet yu baree bare te sa tur dootul nekk abraham waaye ibrahima ndax def naa la nga nekk baayu xeet yu baree bare dinaa def ba sa njaboot ne xas génne ci yow ay xeet ba ay buur jóge ci yow te dinaa feddali sama kóllëre sama diggante ak yow ak sa askan mu nekk kóllëre rek faw ba jamonoy jamono dinaa nekk sa yàlla yow ak sa askan bu leen fàtte ràññee melokaanu yàlla yi ci nettali bi yàlla fas na kóllëre ak ibrahima nettali bi mu ngi aju ci ñaari doomi abraham ismail ak isaaxa fukki at jàll nañu gannaaw bi abraham jóge réewam waaye moom ak sarayi ba booba amuñu doom noonu sara yi jël jaamam bu jigéen doon waa misra te tudd ajara may ko abraham sara yi ne abraham gannaaw yàlla borom mayu ma doom jëlal ajara sama jaam su ko defee ay doomam di sama yos abraham di nangu ñu teg ci tuuti ajara ëmb bi mu xamee ne dafa ëmb mu tàmbalee beew ci kanamu sara yi sara yi ne abraham léegi jaam bii yab na ma donte maa la ko may abraham may sara yi mu dóor ajara ajara daldi daw waaye am malaaka fekk ko ci wetu benn teen ci manding mi malaaka ma laaj ko ajara foo jëm mu tontu ko sama sang laay daw noonu malaaka ma wax ko delul ci sa sang ndaxte xeet wu mag dina jóge ci yow dinga am doom ju góor nanga ko tuddee Ismaïl mu ngi tekki yàlla dégg na ndate yàlla dégg na sa jooy noonu ajara ñibbi ganaaw gi mu jur doom ju góor abraham tuddee ko ismail booba abraham amoon na juróom-ñetti fukki at ak juróom benn ay at jàll yàlla feeñuwaat abraham bi abraham ame téeméeri at yu des benn yàlla ne ko dina fas kóllëre digganteem ak moom ak askanam mu soppi turu abraham def ko ibrahima muy tekki baayu xeet yi yàlla ne dina sàmm sama kóllëre ak yow ay giiri giir ba faw dina nekk sa yàlla ak yàllay say sët dinaa leen may réewu kanaan ba faw yow ak say sët na li doon seen wareef góor ñépp dinañu jong noonu seen yaram dina am màndargam sama kóllëre ak yéen xale bu nekk war na jong su amee juróom-ñetti fan yàlla soppi sara yi def ko saara muy tekki lingeer yàlla ne saara dina ko barkeel te dina am doom ju góor ñu tuddee ko isaaxa yàlla ne ci isaaxa lay jaarale li mu dige yàlla ne itam dina barkeel ismaël doomu jaam bi te Ismaël dina jur xeet wu yaa waaye yàlla ne li mu dige ci Isaxa doomu Saara ak Ibrahima lay feeñe bés boobu Ibrahima jongal Ismaël ak góor ñépp ni ko ko yàlla sante gannaaw loolu borom bi ak ñaari malaaka feeñu Ibrahima ci jëmmu nit Ibrahima ngi toogoon ci buntu xayma bi mu ne ñetti nit ñi ñu toog te lekkandoo ak moom borom bi wax Ibrahima ne ci nëgni si déwén Saara dina am doom booba Saara ngi woon ci biir xayma bi mu dégg loolu noonu mu ree ndaxte xamoon na ne mag la te weesu na am doom yàlla ne Ibrahima lu tax Saara ree ndax dafa am lu të yàlla njalbeen ga saar fukk ak juróom-ñett aaya fukk ñeent fii lañuy yem tey am na ay laaj benn lu tax saara may ibrahima jaamam ajara dafa doon jéem a sotal li yàlla diggane ne ibrahima dina am ay sët yu bare ñaar lan la Ibrahima def bi mu nangoo jël ajara Ibrahima amoon na xel ñaar ci li ko yàlla dig ñett ndax loolu Ibrahima def bàkkaar na ci waaw ñeent lan mooy bàkkaar mooy bañ a déggal yàlla mën na doon dégg di wala ñàkk xam juróom ndax yàlla moo dogal Ibrahima am doom ak ajara déedéet du yàlla saara la dogaloon mu am ak moom doom saara moo ñàkk gëm yàlla juróom benn lu tax saara dóor ajara ndaxte ajara dafa bëggoon a beew ci kanamam juróom lan la malaaka mi wax ajara bi mu dawee malaaka mi nee na ko mu dellu ci sangam juróom-ñett lan la yàlla dig ajara xeet wu yaa dina jóge ci moom juróom-ñeent gan kóllëre la yàlla fas ak Ibrahima. yàlla nee na ko dinaa nekk sa yàlla ak yàlla sey sët ba faw te dinaa leen may réewu kanaan ba faw fukk lan la Ibrahima ak sëtam yi war a def. xale bu góor bu nekk war na jong su amee juróom-ñetti fan fukk ak benn lan la yàlla dikk Ibrahima ci mbirum Saara yàlla nee na dina ko barkeel te Saara dina am doom ju góor fukk ak ñaar dige bi ci kan lay jaar yàlla nee na ci isaxa lay jaarale li mu dige yan melukaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla xam na lépp yàlla xamoon na fan lay fekk ajara bi mu dawee gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla yónni na am malaaka ngir mu giifal xolu ajara wax ko ne yàlla dégg na ay jooyam te dina sàkk aw xeet wu mag wuy jóge ci moom ajara yàlla lu mu dige def ko yàlla yeesalaat na li mu dig ibrahima ne dina ko def muy bàyyu xeet wu yaa yàlla mooy boroom doole yàlla may na saara doom ci màggatam beneen yoon dinañu waxtaan ci ni yàlla tasee Sodom ak Gomor